ziar bu baax ñu ngi ziar bi naka Mboose eh, ñu ñëw tay ci bisu màgg bi 17 avril di bés bi Serigne Béthio daje woon ak Serigne Saliou lan ngeen yëg tey en tant que doomu Cheikh Béthio waaw moom de li yëg rek mooy sëñ Tuubaa mu tànk ginnaaw tey mu junne dana gàccal démb loolu daal lañ ci yëg ak it xam ni moom daal jëmm nekk fi waaye daa mel ni mi ngi fi teew na ndax ci barab di ko doxal ay at ne bis jot nga manqué ko mu mel ni manqué loolu lay ak càgg la xool bu ñëw fii xam ni sëñ Béthio ngi fii waaw demul fen waaw di sant ci yokk bi waaw tey course gi ma ràngoo sëñ Saali ma ko jox tey dama ko barkeeloo ràngoo ko ngir course sëñ Saali lu mu naan wér-déen la ma ma ko jox man daaw ma tax man daaw ma gàccoo kurus waaye jox ji boo ko jox tey bis bi dama koy barkeeloo sëñ Saliou moo ko daan wér jox ma ko ma ci sant sëñ Saliou di ko wér euh, ba tey mbokk ni lañ ko waxee fii Dakar instant fii ci Madinatu Salaam dëkkub Cheikh Béthio ñu ñëw fay tey ci ci kër goo xamante ni di soxna Cheikh Béthio soxna si ñu ngi lay ziar. jërëjëf jërëjëf sëriñ Saliou jërëjëf Cheikh Béthio Cheikh Béthio jaamu sëriñ Saliou yàlla na fi yàgg te wér. Seex Béthio jaamu Serigne Saliou yàlla na fi yàgg te wér ñoo ngi santaat Serigne Saliou di ñaan Seex Béthio jaamu Serigne Saliou yàgg fi loolu te wér ñun seex bi amuñu payam yàlla rek moo am payam 17 avril tey jii ci laa am juróom-benn fukki at ak juróom-ñaar muy sama anniversaire tey bi may ànd ak moom maa ngi am fukki at ak ñett moom ba ñu am juróom fukki at ak juróom moom. te réccuwuma ci dara aw ma dara lu may xebet ci moom maa ngi sant Serigne Saliou nag ci moom maa ngi sant Serigne Saliou ci moom sëñ Béthio ak a baax ak ay gor gor pire ak abaax baax sëñ Béthio mooy noobal pire man mosuma gis ku mel ni sëñ Béthio bu la joxee tey du bu subaa mu joxaat la te doo ko ñaan dalay xool ci bëti yéen maane mi rek jox di la jox man fii li ma fi am ci ay kër xaw ma nu mu toll li ma fi am ci ay kër xaw ma nu mu toll ndakaaru tubaarkàl la kees tubaarkàl la daqaar mbay tubaarkàl la sanc tubaarkàl la njaareem tubaarkàl ñuy santaat sëriñ saaliwu ci seex becco cuun jaamu sëriñ saaliwu ñoo ngi santaat bu wér man sëñ becco aw ma payam xanaa doon ab baay faalam rek doon ab jaamam maa ngi ñaan nag mu yàgg fi lool te wér ci barke Serigne saaliw ci barke Serigne Saliou ci barke Cheikh Béthio Cheikh Béthio ko baax ak ay noble noble pire Cheikh Béthio ko baax Cheikh Béthio baax Cheikh bi man de Cheikh bi xaw ma lu ma ko war a wax lu ma ko war a wax rek xeeb ko wóor na Serigne Saliou Mbacké dafa baax man bi may ànd ak moom xaw ma dara booba fukki at ak ñett laa am mu jël ma te booba tey maa ngi ci kippaare bi te fas yéene mu fay jóg mukk du ma fi jóg mukk xanaa doon ab baay faalam doon soxnaam doon ab baay faalam doon léppam waaw ñoo ngi naan nag ci barkeb Serigne Saliou lii muy def chaque année di ko def yàlla na koo yàgg a def te yàgg koo jiite ci barke Serigne Saliou ak Cheikh Béthio Cheikh Béthio jaamu Serigne Saliou yàlla na fi yàgg te wér maa ngi sant nag sama njaboot gi sama njaboot gi ma am moom man dew ma ci waañ jur naa ay doom ñoo ne ci waañ wi ñooy def ñooy def lépp Mame Mbend Thioune Maysa Diong Thioune faatim Thioune Fatim Thioune Thioune Mame Bousso Mbossé Mami Thioune ñoom ñëpp man defuma dara waaw yàlla de moom teral na ma fi mu dama ni xoog dama ni nong dama ni nong ni xale moom teral na ma jur naa ay doom yu day ni man léegi dafa tuma dindee tuma damay toog rek xale yi def santaat nañu nag Serigne Saliou gu wér di ñaan Cheikh Béthio jaamu Serigne Saliou yàgg fi te wér maa ngi nuyu soxna Aida di nuyu soxna Batoor Thiam ak soxna Adja Saliwu ak soxna Aysa Mamakan maa ngi leen di nuyu ñoom ñëpp samay rakk lañu te kenn fakkastalu ci waaw kenn fakkastalu ma ci ñoo ngi santaan nag Serigne Saliou bu wér jërëjëf Seex Saliou jërëjëf Seex Béthio jaamu Serigne Saliou yàlla na fi yàgg te ngeen ko gisee ñu ngi fii ci geneen këru soxna Cheikh Béthio ñu fekk fi soxna Adja Saliou Thioune ci 17 avril bi. soxna si ñu ngi lay siyaar. yalla nañu serigne bi boole yool bi da jëfëti serigne Bethio serigne Bethio jaamu serigne Saliou yalla fi yag lool te wër serigne Bethio ñi doylo te ak ëlëk yalla fi yag lool te gëna wër wér ñu ngi santat bu baax suñu sang bi moom serigne Bethio diko ñaanal mu yag fi te bisam bi mu wote tay ñu yàgg koo ànd ak moom mi sant serigne Saliou ñu koy ñaanal wër mu yag jamono ci. jërëjëf soxna si. ni ngeen ko waxee ñu ngi koy ñaanal wéru yàgg jamono 17 avril 2019 boobu ba léegi ngeen ne ci wàccaay wi ànd koog mbokki taalibe yi tey ngeen ñëw ci bis bi nan ngeen koy dundee. Ah waaw ñu ngi koy dund ci mbég ah waaw di sant di sant Serigne Bethio waaw ah moom mii sant Serigne Saliou duñu ñaar lenn lanu waaw moom ak sant rek lañ ci yëg ndax boobaa léegi bi ñu gàmmoo ba nopp ba tey ñoom ñu ngi ci waajtaay bi. waaw ci ndigalam ndax kat Serigne Saliou ko woo ne ko sëñ Béthio mu nekk ko mu nekk ko dama bëgg nga ni sa taalibe yi nañu fonk màggal gi nañu fonk gàmmu gi nañu fonk xasaayit Serigne Touba yi sëñ Béthio ndeysaan ci yërmandeem saa su ne mu ci teg naan man maa ci teg 17 avril bi waaye ñun de wóor nañu ni moom day wane ak taalibe moo tax mu ne maa ci teg waaye Serigne Saliou ku mu dem ba may ko jëmmam ne ko yaay man maay yow jàpp ci yow dëgg-dëgg jàpp ci man kooku la mu wax la Serigne Saliou wax ndax wax na ko ci biir kàddoom nee na ko defoo waxoo loo def maa ko def loo wax maa ko wax bakkan nekku si àdduna nekku si lépp Serigne Touba la kon wutalewuñu ko moom mu wax ko ak Serigne Saliou wax ko ndigal loolee nag moom la ñuy jëfee tey waaw muy cant googee nga xam ni ni nga ko waxee ci say kàddu 17 avril 2019 muy 73e édition bi ndax mu ngi ànd Serigne Saliou. ci saayir ci lu ñu mën a xam depuis 46 tey nag ak cant lañu juree ndax ñun cantaakoo lu nu am bis bii ci ci la ci la soqeekoo waaw daje Serigne Béthio beeg Serigne Saliou bi ñun ñii ci lañ amee ndax ci lañ jébbaloo am ngërëmul yàlla dooni cantaakoon cantaakoon mooy ki saxoo sant yàlla te Serigne Béthio moo ñu sóob ci loolu moo ñu defi cantaakoon moo tax ak cant lañu am mbégte maanaam ci bisam bi ni mu demee xéewalam yu yaatu yi te boobaax léegi yéen couvrir gis ngeen yëf yi ni mu demee nag yi xar yi giléem yi ginaar yi dara manqué wul waaw ak cant bernde sëriñ Saliou ko waxoon ba muy dem dikk ko siyaare waaw jiital njaboot gi togg ay berndeem ñëw waaw bi muy ñëw naaj bi tàng na tàng goo xam ni maanaam soluñu sax ay daal ndax mësta ñeme bii ko sëriñ Saliou mu fay soli daal waaye ci ci tàngoor googu di ko Serigne Saliou gisee ñeewante tuut tànk yi soxna yi sëñ bi mel ni lu defar kanam gi waaye bi mu yegsee mu nekk lii ana loo ci jublu mu nekk Mbàkke xanaa sant si la mu nekk hmm, mu nekk Mbàkke xanaa sant la ba mu ñetti yoon sëriñ Saliou nekk ci nekk bis ne tey yàlla bég na yonent bu bég na sëriñ tubaab bég na Serigne Saliou Serigne Béthio daal di ne moom loo xam ni ba nga ko jëfee yàlla bég yonent bi beeg sëriñ Tuubaa beeg nee loolu dee su ko def di ko bàyyi daal di jël cant gi daal di koy def diineem sëriñ Saliou nag moo ko leeralal lan moo di ak cant ndax nee na ko moom moom yàlla digaloon na ko yonent yi yonent yàlla Daawuda ak ñoñam waaye sëriñ Saliou da koo firil nan la ñuy santee waaw dañoo baaxoo di wax bu ñuy sant naan alhamdulilah alhamdulilah lu baax la waaye sëriñ Saliou da ak cant rendi bernde togg say ñam yu neex te bari di ko séddale te doo si am xeej ak seen jublu ca di bëgg tey bégle maanaam mooy lii ñu def tey maanaam jënd nañ suñu jur rend nañu togg nañ ko ay bernde jox nañ ko ñëpp woo nañu ñëpp sëriñ bi fu ne bernde yi dem na fa tout Touba Njaareem fu ne dëkk yi États-Unis boo fa demee ña ngay bernde di rendi Bordeaux gee mu ne ña ngay bernde di rendi waaw Chine feneen foo dem ña nga def maanaam woo nañu ñëpp bernde nañu ñëpp waaye nag ci biir loolu mbégte bii ngeen fekkee moom mooy mooy fësal cant gi ah, ba tey bokk internet yu Dakar insa ni ngeen ko gisee nii mu mel ne ñu ngi ci entrée dëkk bi maanaam fi nga xam ne fi la nit ñi duggee noonu ngeen koy gisee oto yaa ngi jógee fu ne moto yeeg bus yeeg jaakaatal glace yeeg ñëpp a ngi ñëw ngir teewee si li nga xam ne mooy cant gi nga xam ne moo am fii tey ci Medinatoul Salam kër Cheikh Béthio noonu ngeen koy gisee gaa yaa ngi noonu kenn ku nekk yaa ngi ñëw noo mën a def ba yegg si rek yaa ngi koy def. Ah, ba tey mbokk internet yi Dakar Instant ñu ngi fii ci kër Soxna Aïcha Mama kan di moom it kenn ci soxna yi Cheikh Béthio soxna si ñu ngi lay ziar. yaa ngeen jëf ñu ngi delloo ziar. soxna ñu gis ne tey ñu ngi ci 17 avril ci mooy bis bi sëriñ Saliou daje woon a Cheikh bi ci niñ ko déggee mu mel ni taarix bi ci yow la jaar ci yow la feeñee nan ngeen dundee bis bi tey. maa ngi sant Serigne saaliw ci tàmbali Serigne Saliou Mbacke maa ngi koy sant jërëjëf Serigne Saliou Mbacke jërëjëf Serigne Saliou Mbacke jërëjëf Serigne Saliou Mbacke. maa ngi sant sëriñ Béthio di ñaan mu yàgg fi lool te wér ci barke sëriñ Saliou waaw bis bi de wax dëgg yàlla rëy na ndax mooy suñu cosaan te man de dama cee am tawféex boo xam ne ah mbiru sëriñ bi rek la ndax de man de sama jëmm jii la di sat abib lu feeñee donc man de lu ma sant rek de sebor barke sëriñ saaliw et lii nga xam ne mooy di sat avril bi dañuy wax naan lu olof di wax naan lu lu yàgg dëgg la lii dëgg la bi ma ko sëriñ bi won bu fekkoon ne ay lu lu ñu invante la ak loolu du egg fii dem na nag bu egg foo xam ne a ah, tànk kanamu sëriñ tubaay da cee feeñ waaw waaw kanam tànk sëriñ tubaay da cee feeñ lool ma ci sant bu baax a baax di ñaanal sëriñ Béthio yàgg fi lool te wér ko koy ñaanal mu ànd koog taalibee bi lii tey saa su ne ñu def 17 avril maay li ma remarqué mooy saa sune ne dafa yokk saa su mbooloo mi day gën a yokk saa su nag yi gën a yokk xéewal yi gën a yokk ñu ngi bég tey bégle ñu ngi def li sëriñ bi digle maanaam booy sant da ngay bég tey bégle di rendi di bégle te doo am xaj seen te moom lañ moom la ñu def sëñ Béthio dee nekk fi waaye ñu ngi koy ñaanal mu yàgg fi lool téwéer ba ba déwén bu soobee sëriñ Touba. mu fekke 17 avril bi ak ñun mbolo mi yëpp ci barke Serigne Salim man dal damay ñaanal Serigne Béthio mu yagg fi lol tewel wer yalla na fi yagg tewel te ñu ko ak mom ak bokki taalibe yëpp ñu ko ak ñom mu yagg fi lol mu wer ba jël wat fi ci njabootam ak ci bi ci barke Serigne Salim. jërëjëf soxna si mu nekkoon soxna Aïssa Mama kan di momit it soxna ci serigne Béthio ñu lay jaajëf. ciker batay fi kan ci keur soxna Aïssa Mama Kane ñu fekk ben jëriñ ju toog fii gi xaar nan wa ma ngi nuyu di len xaar ñaan Seex Béthio jaamu Sëriñ Saal yàgg fi tëbéer lool waaw baay moo di Baye Mody Gadiaga jëwriñ Touba Aynoumane ànd bi ma jëbala moom mën na tey 30 ans fanweeri at sagal nañu sutaal nañu si dong taribe yi mu joxoon Sëriñ Saaliu si laa bokkoon waane moom day mel ni sori gi ñu sori tey teelu ñu gën a jege waaw muñ toll ba waxtu wii moom de dafa ñuy woon boppam rek ndax fi ne ñu ñoo war a mokkal tari waaye moom de doon taalibeem jomme na moom li sagal nañu moom li suturaal nañu moo ni defuñu asgor kon de ñu ne dollu ñu ko may am gën a gore rek gën a seey si jëmmam ji moom de wóor na moom tey moom lim ñu sore tey wuur na ñun ci mbiri biir de moom tey la gën a jege. 17 avril bu ñu mës a neex tey bi moom bi mu fekkul sax moo gën a neex benn yi doy na teraanga yi doy nañu jàmm ji bëri na nit ñaa ngi yaale ñu ngi lekk gonjox rafet nañu taaru nañu. te ñoo ngi ñaan mu yàgg fi te wér lool ci barki Serigne Saliou te moom ne dimbali nañu barki Serigne Saliou ñu ne bu ñu demee ba xam ne dañ ko war a moy saa wala dara lu saa lu ko neexul yàlla bu ñu ko fekkee te moom ne dimbali nañu def nañu as nit def nañu as gor te sagal nañu may nañu njaboot may nañuy soxna may nañu teraanga di seen ab bi a jàppandi.